Euh, di wax ne at mu jot ci waxtu wi bu ñuy door examen yi ci ndigalu euh, ministre éducation nationale muy docteur Cheikh Omar Anne euh, direction des examens et concours dafay am ndaje moo xam ne mu yaatu bu muy am ak taskatu xabaar yi pour wax waa Sénégal Euh, jumtukaay yi nga xam ne ak dogal yi nga xam ne jël nañ ko pour fexe ba nga xam ne examen bi muy CFEE ak entrée en sixième dina jaar ci yoon euh, ren nag euh, CFEE ak entrée en sixième ñu ngi ko jàpp ci àllarba ci weeru juin bu amee ñaar fukki fan ak benn ak alxemes bu amee ñaar fukki fan ak ñaar muy maanaam àllarba bii di ñëw ci lañuy door examen bi ci Sénégal gi yépp ca Gambie ak ca Guinée Bissau euh, ren nag boo xoolee direction des examens concours jël na ay matukaay yu bari ci wàllu inscription xale yi maanaam ñu bind candidat yi ci wàllu épreuve yi ñu tabax ko tànn ko euh, euh, multiplier ko ba pare def ko ci ay Euh, jumtukaay yu yu yu am solo euh, sécuriser ko ba nga xam ne euh, dana mën a yegg ci inspection d'académie yi ci jàmm te ministre éducation nationale bi ñu doon sax lettre gouverneur yi wax leen nañu taxawu épreuve yi sécuriser ko ba examen yi ñëw ñu jébbal ko inspecteur d'académie yi ñoom ñoo koy jébbal président président de jury yi ak chef de centre yi Euh, ci loolu nag boo xoolee euh, toujours ci euh, bëgg rek examen yi jaar ci yoon inspecteur d'académie yi ànd nañ ak gouverneur yi ànd ci ak préfet yi ànd ak sous-préfet yi ñu def li ñuy wax CRD muy comité régional de développement def CDD comité départemental de développement ak CLD muy comité local de développement muy ndaje yoo xam ne gouverneur autorité administrative yi ñoo koy organiser ànd ceeg acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo yor éducation ci région bi ci département bi ak ci arrondissement yi waxtaan ak ñoom jël ay dogal yoo xam ne jëm ci maanaam ñu mën a organiser examen yi ci jàmm ak salaam ren nag boo xoolee euh, ci wàllu li ñuy wax ci tubaab statistique mooy xayma euh, limu euh, candidats yi Euh, am nañ ci euh, ren euh, deux cent quatre vingt mille six cent vingt et un boo ko waxee ci wolof mooy ñaar téeméer ak juróom-ñeent ak fukk ak juróom-ñaari junni ak juróom-benn téeméer ak ñaar fukk ak benn ci candidat boo xoolee loolu jigéen ñi am nañ ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti junni. ak ñaar fukk ak benn euh, daanaka boo xoolee kon jigéen ñi ñoo ëpp sax góor ñi ndax téeméer boo jël rek juróom fukk ak juróom benn yi ay jigéen lañ euh, boo xoolee nag candidat euh, maanaam limu candidat yu daaw yi ak limu candidat yu ren yi daanaka li ci tegee junni la ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn moo ci tegee maanaam kandidaa yi ñu am ren lim yi ñu am ren moo ëpp lim bu ñu am daaw loolu nag euh, boo xoolee ci biir kandidaa yi am na ci euh, candidat yoo xam ne dañu am jafe-jafe ci wàllu gis euh, ci wàllu gis loolu am nañ ci ñeent fukki candidat ak juróom-ñaar waaye terewul kandidaa yooyu am nañ ay jumtukaay yoo xam ne Eh, fe dinañ fexe ba nga xam ne ñoom dinañ def examen bi te duñ am benn jafe-jafe ndax bu dee ñi nga xam ne duñu gis dara eh, ñoom eh, dañuy def li ñuy wax transcription braille moom lañ leen di defal bu dee ñi nga xam ne seen gis dafa am tuuti jafe-jafe dañuy yokk polisu épreuve yi ba nga xam ne dinañ ko dinañ ko mën a gis donc ci côté boobu amuñ ci benn jafe-jafe ci wàllu matériel ak lépp loo xam ne wàllu koppar la jëm ci li nga xam ne moom la ñuy euh, utiliser pour mën a organiser examen yi ci jàmm ak salaam ministère éducation nationale matériel bi yëpp jébbal nañ ko inspection d'académie yi euh, ci wàllu euh, koppar tamit li ñu warloo ak inspection d'académie ñoom jox nañ leen ko jële ko ci li ñuy wax fonds d'appui aux examens et concours ci wàllu sécurisation bi tamit parce que xam nañ ne euh, examen dañ koy sécuriser jëlee ko direction des examens concours ba ci inspection d'académie ba ci IEF yi ba ci centre yi wax dëgg yàlla jël nañ ci ay matukaay yu mot sëkk dégg nga ñu ñaan yàlla rek euh, wax dëgg yàlla examen bi jaar ci yoon di lancer un appel aux parents d'élèves ñu taxawu seeni doom bu ñu xëyee suba teel ñu fexe ñu ndekki ba suur suñ leen mënee yóbbu sax ba ci centre yi ñu yóbbu leen ba ci centre yi euh, jàppale leen ndax ñaari fan wax dëgg yàlla jafewul di ñaan yàlla nag ñu am résultat yu baax yu ëpp sax résultat yi nga xam ne euh, moom lañ amoon euh, daaw